marhaban jongante mi war a dox ci diggante Sénégal ak Guinée Conakry ni ki tey jile ci ajuma jile ak campagne électorale gile ñeel élection locale yi ñoo gën a fës ci xëtu yéenekaay yi Sud Quotidien nañu ci seen ñaari lupp génn ni ki tey jile équipe nationale football bu Sénégal ab choc bu rëy moo koy xaarandi ci diggante mak Syrie bu Guinée di ab derbi wu Afrique sowu-jant mi ñuy xaarandi ci poule B bi ndax ñaari équipe yi kenn ku ne daal nay am ñetti poñ Vox Populi nañu ab derbi bu tàng jir moo war a dox ni ki tey ci diggante Sénégal ak Guinée Conakry lépp ci place huitième de finale suñu naataangoo yi nañu enjeu wu jongante wu tey bi moo dina nees def bene faax ci place bu njëkk bi ci groupe B bi ndaxte képp ku ci am ndam ni ki tey jilee daal ngay ubbi say buntu jëmale ko ci huitième de finale ya bés le jour jàppee bii la jongante abu ci diggante ay dëkkandoo ci joojule jamono tàggatkatu équipe nationale bu Sénégal Alioune Cissé moom daal ab jaaxle la amee aku bu jiixi jaaxa jëm ci protocole sanitaire mi waa confédération africaine tëral jëmale ko ci ni ñuy testé joueurs yi ci mbasum covid 19 gi moom Alioune Cissé ne bugg ci sax yëy yàbbi waaye nag léeg am na ay mbir yu mu gis ya nga xamante ne du ci comprendre dara li ñal waxtaayu gaynde yi jëmale yu métti compliqué lay dund fu mu toll nii li ko sabab du lenn lu dul ne ay joueur yu mag yu mu gën a ci équipe bi ñoom ñëpp doomi jàngoro ji di coronavirus daal la leen dugg moom Aliou Cissé ci boppam daal na xam le ni loolee mënees na leen indil ay jafe-jafe naam sax am na yéene jëlaat kii di Saliou Ciss Nampalys Mendy ak Pape Matar Sarr l'observateur daal tàggan gi di maanaam absence am mënees naa indil équipe bi ay jafe-jafe yu tara Walf Fadjri quotidien nañu jongante tey bi bokk na ci liñ ci gën a xaarandi ci équipe nationale bu Sénégal moo di indi ay jubbanti ndaxte tey gaynde yi war nañoo wane beneen xar kanam ci seen diggante ak sili national gi lu ñu wone woon ci jongante mi doxoon ci seen diggante ak Zimbabwe daat nay jurub jiixi jaaxa ci xelu askan wi yéene kaay daat nañuy dikkaat itam ci campagne électorale gi ñeel élection locale yu ñuy dëgmal Walfadjri quotidien ne ñu ni ñuy fas yéene voté di maanaam mode scrutin bi bu compliqué lay doon ndaxte ñaari fukki fan ak ñett ci weerum janvier ñi nga xamante ne ñoo fas yéene dem ci mbañ gàcce ya ngir tànn seeni ay mbër dina am ci ay gox yo nga xamante ne ñaar yoon lañ fay voté am ay gox yo nga xamante ne ñetti yoon sax dinañ ko fa voté yéene kaay foofee nag askan wi ñetti vote lañ fay amal di maanam li ñeel départemental bi municipal yi ak ville bi critique yéeni kay moom mu ngi xam le ni Soham Wardini maire sortante bu Ndakaaru mooy candidat bu njëkk xaatim ni ki démb ci alxamis gile charte non violence bu cadre unitaire de l'islam bu Sénégal CUDIS ak plateforme jàmmi réew mi ci jojule jamono yéeni kay laas mu ngi xam le ni candidat coalition Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Diouf Sarr daat nay lànk fu mu toll ni ne lu jëm ci boppam personnellement du engagé wu benn yoon ngir xaatim charte bu ni mel ndaxte jàpp ne ñi mu soxal du ñenn ñu dul ñi mu fas yéene jàmmaar lool ci xëccoo gi ci ville bu ndakaaru wa ndar kepp ko yéen kaayu enquête mi ñëwaat ci ay mbir yu doy waar ñuy faral di nemmeeku ci élection locale yi rawatina ci wàllum xarfa fuufa yéen kaay bi nañu xeetu mystique bu ne daa ñu koy gis ci les local locales suñu naataango yi dem sax bay wax naan jinne yi ci jamono ñuy toll ni tembe candidat yi ñeel local yi daar nañ leen utali bu baax a baax jaa ngeen